sont corrigés partout dans le monde loolee daanaka patriote yi réussir nañ ko 5 sur cinq gars yi ñoo yor contrôle adduna bi ci ni ma ko mën a waxe ndax adduna bi fépp foofa ne coow ab Sénégal dem na fa fu nit ni coow nag jàpp ni maanaam tëngaleen injustice bu boobaa da nga daj la mburu dajul woon cib loole loolee la ñu gis gars yi sama waa ji nag may leen ma ko bàyyi leen ko ci jàmm Youssouma jigéen Youssou Mari Sène mu doxal gars yi réew mi dafa mel ne président Ousmane Sonko moo ko moom ndax daanaka fi mu toll nii comme ni ñu leen ko waxee ci njàngat yi nga xam ni ah, bis bu ne yéen koy dund seen télévision bii di El Hadji Malick mu ànd njàngat moo xam ni daanaka ànd naag xam ànd naag bàyyi xel tamit kenn comme ci man di doon ñu jox la sa àq ak sa yelleef président euh, Macky Sall mi nga xam ne nag ci ay kayit moo yor réew mi waaye jàpp naa ni ci popularité moom réew maa ngi faneen ngeen gis ko noonu daanaka mu mel ni ku yéer di xool ba xam situation yi fu mu toll waaye situation yi fi mu toll nii ah, gone yi danoo yokk cere doole ñeex gone yi maywun cent francs ci li nga xam foo tourné euh, daanaka ci mbedd yi mayewuñ fa dara lépp loo xam ne gaa yaa ngi koy def muy ay programme yoo xam ne yu am solo la wala yu am doole bi ci mujj mooy bu démb sama waa ji Youssou Mari Sène fële ca euh, France nga xam ne moo daanaka moom it xaw na faa euh, sonn ci sonkorisé boo xam ne gaa yi def nañ ko euh, ci koo xam ne da def liggéey waaye nag patriote moom képp koo xam ne jàpp nga ni jàpp nañ ni ànd nga ak wala mos nga ànd ak moom daanaka li mu leen di liñ lay def mooy perturbé la ba nga xam ne maanaam loolee dootoo ko defati ma jàpp nag Youssou Mari jigéen Youssou Mari Sène sama waa ji Euh, moom daanaka jóge na ci li nga xam ni moo nekk état bi nikkatu ci dafa ber yoonu boppam ci xalaat bi ma xalaat ni dafa bëgg a bar parte boppam kon gaañi war ngeen ko mën a jéggal patriote yaa ngoogu ci àdduna wala ngal kàpp ma yewun dara euh, ku leen xamulit wala boo ku leen yabit da nga leen a fekk euh, ñuy nelaw kon gis-gis bi nga xam ne am nañ ko fan yi ñoo yor contrôle bi instant bi fii nga xam ni foofu la réew mi toll ñoom xeexatun xuloowun tey daanaka lu gën a bari ñi nga xam ne ñoo ci dagg ay saaga sax ñàkk ñàkk xam dara la ñàkk xam fi ni teg seen tàng waaye ñi xam ñëpp ñu ngi ci combat boo xam ne buñ ko réussiree daanaka danañ ci am loo xam ne sax musuñu ko euh, séntu ci combat yi ndax fas ni yi fan yi nga xam ne moom lañ nekk ni nu commencé xeexe xeex boobee daanaka xeex la boo xam ni bu ànd ak yar la bu ànd ak teggin waaye xeex boo xam ni euh, jàpp nañ ne tey ji moo ëpp popularité sax daan daggi saaga wala yeneen kon système bi nga xam ni patriote jël nañ ko système la boo xam ni maanaam ñu ci bari danañ ci ànd ñoom yeneen information nii di ko defar yow mi abonné gul bu ko fàttee def gaaw